ñu dem kon directement ci magistrature bu Sénégal yëngatu na. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, boo seetloo ki nga xam ne moom mooy euh, Amadou Diouf bi nga xam ne moo nekkoon procureur euh, bi nga xam ne mooy cour d'appel. Mm-hmm. léegi jëlee nañ ko fa ki nga xam ne itamit moo nekkoon cour suprême jëlee nañ ko fa léegi Abdou Karim Diop. léegi mooy procureur de la république. changement yooyu nga gis ndax da nga cee am jàngat bu wuuteeg bi sénégalais am wala da nga jàpp ni waa ji dafa am stratégie bu muy teg. fi ñu leen changé ak place yi ñu leen teg sa dëgg-dëgg dalul xel fi ñu leen changé mooy fan mooy dañu jëm ci ay procès yoo xam ne nguur gi moo am adversaire am bu war a dem justice mhm. ci biir adversaire yooyu ñu jàpp ne adversaire bi leen gën sonnal moom moo war a dem ci justice mhm. su dee jamono boobu la ñu xool ñoo xam ne dañoo jàpp ne mën naa am ñooñu mhm. lu leen nguur gi defloo mën nañ ko def nga yóbbu leen fa ñi nga xam ne yaakaar nga ne li nga bëgg duñ ko def nga toxal leen loolu mën naa tax nit yaakaar ne manipuler justice bi ngeen bëgg. Hmm. benn misaal laa ciy joxe euh, Ousmane Diagne bi nu jëlee procureur général. waa Ousmane Diagne dafa ubbi benn dossier. Hmm. boo xam ne ci dossier viole bi la bokk. bu aji ak Ousmane. bu aji ak Ousmane. Hmm. pour woolu metre Gabisow. ak ñin ci àndal ñu tudd leen. te loolu c'est la première fois ci dossier bi mu am. mooy ñoom ñu war leen woo déglu leen ba xam affaire complot bi ñuy wax ban position lañ ci am. waaw mu ubbi dossier boobu rek ñu dàq ubbi dossier bi woo leen ñu xëy toxalee ko foofu génne ko ndakaaru c'est-à-dire mooy moom dossier boobu mu ubbi sax léegi amatul kàttanu yeggale ko ndax kiy ñëwaat léegi dina ko yeggale yaa a problème. kon toxal googu ñu toxal euh, procureur boo xam ne dafa ubbi benn dossier ba noppi. te dossier bi mu ubbi arrangé wul nguur gi. Ah, mais opposition bi la arrangé. kooku nga toxal ko. ah kon dañ ko waroon a bàyyi mu yeggale. ah mais moo doon yoon. yow da nga ci am ñoo ñaaw njortu ni que. waaw loolu mooy dossier bi waroo ko laal surtout bu ñu yeggee ay information yoo xam ne après dañ ne ko dossier bi na nga ko tëj mun leen non moom loolu. liggéeyam kenn du ko wax nu mu koy defee xam ne ni mu koy defee. Mhm. képp ku plainte fii day topp plainte bi c'est-à-dire loolu day niroog dëgër bopp. waaw te moom am na kilifa ministre de la justice moo ko yilif. Mhm. ministre de la justice heure bu ko neexee mën na la toxal. loolu bu toxoo yaa problème beneen bi ci des. Mhm. procureur bi nga xam ne moom moo. moom moo def euh, réquisition. yóbbu Ousmane Sonko chambre criminelle. criminelle waaw. kooku la ñu yóbbuwaat cour d'appel. waaw mooy tey boo demoon chambre criminelle tey ñu condamné la. cour d'appel nga jëm. boo defee appel ci moom ngay demaat. waaw waaw loo fa wuti. maanaam ki la condamné fii moom moo ne la yow criminel nga nañ la yóbbu fee ñu àtte la. waaw kooku lañ la war a joxaat mu àtte la yow. léegi moom y a problème c'est-à-dire moo tax yu mel noonu mën na tax euh, nit ñi di sikk sàkk man jàpp naa ne. Hmm. mënoon nañ bàyyi ba dossier yi jeex ñu door a changé waat même su fekkee changé gi wàccul loi maanaam. Hmm. yegg nañ ci période boo xam ne dañ war di yeesalaat bànqaas yi même bu ñu fa yeggee. Hmm. ñaata yoon lañ fi gis. président war fi nommé ay euh, magistrat def na euh, cour suprême la woon. toog na fi lu ëpp six mois nommé wu ko. dëgg gisoon nañ fi premier ministre ñu supprimer ko. Mhm. Euh, ñu andiwaat loi bi toogaan na fi ay lu ëpp six mois te nommé wu ko. Mhm. cest à am na ci yoo xam ne yow da ngay xool période bi nga toll. est-ce que laaj na ko ak boo ko defee ndax dina tey xel. Mhm. waaw ku ne xam ne ne justice bi noonu muy doxee. dalul xel. d'accord beneen bi ci des ñoom àttekat yi ñoo war a jël seen i responsabilité ci ci naka. parce que su demee ba sénégalais yi koo wax ñu ne la àttekat yi lu neex nguur gi la ñuy def. Mhm. mais loolu dafa daw yaram. te ñoom ñoo jàngi woon ñoom bi ñuy jàng président nekku fii mhm. ñoom bu ëllëg ëllëgee seen bàmmeel duñ fa wete kenn. Mhm. seen bopp ak seen i jëf. mais bu ñu nangoo ñu leen di manipuler comme ça man mënatuma d'accord kon ñuy wax ne justice bi dañ ko war a jox indépendance am. vraiment justice bi ku leen jox seen indépendance àddina tukki vraiment parce que yow bu dee ba nga amul indépendance ki la téye di la defloo di la dindiloo mhm. bis bu la joxee indépendance mais keneen a lay defloo mhm. mooy léegi borom alal yi mhm. ñooy ñëw di defloo justice bi ak di leen dindiloo d'accord ñoom ñoo war a gëm yàlla gëm na yonent salaa salaam dafa wax ne al qudaatu thalatha waahidun fi l janna wa thnaani fi naar ah waaw yonent nee na ñetti xeeti attikat kese ñoo am mu ne ñetti xeet yi ñaar yëpp safara lañ jëm benn bi ah, benn bee jëm aljanna aljanna ñaari sawar ñu ne ko benn bi mooy ban mu ne rajulun arafa alxaq fa qadaa bi fa huwa fi aljanna mu ne juge bi nga xam ne gis na dëgg gi mhm. mu teg ci tànkam àtt dëgg gi mu ne kooku moom ma nga aljanna est-ce que ñu ne ko ñaareel bi mooy kan mu ne beneen xeetu àttekat bi mooy àttekat boo xam ne mën na gis dëgg gi mi ngi nii mhm. waaye nag arrangé wu ko hmm. xëy na waa ji xaritam la xëy na àndandooram la xëy na waa ji da koo ger xëy na dafa ragal waa ji waaye daal waa ji am na influence ci moom. ba mu njuuy dëgg gi jox ko leneen. kooku su boobaa sunu borom nee na kooku safara la jëm. d'accord ak beneen juge boo xam ne xamul dëgg gi nag wax dëgg dossier bi maîtriser wu ko xool na xool xamul fu mu koy jaar. Mhm. mu tëb rek àtte. kooku safara la jëm. mu def ci lu ko neex ñu ne kooku safara la jëm ñu ne yaa rasulallah kii luy bàkkaaram parce que xamul. Mhm. mu ne boobu la waroon a bàyyi dossier bi. bañ ko indee dossier boo xam ne maîtriser wu ko la waroon a yëkkati waat dossier bi delloo leen ko man gëm naa ne am na juge yoo xam ne am na dossier politique yi ñu yóbbu ci justice bi. Hmm. bu ñu amoon fayda boo ko indee noonu lañ la koy delloo ne la lii man mënu ma ko aate. Ah, ndax xaw ma fan la commencé. waaw dossier politique la. Hmm. dafa am yoo xam ne da ngay xool rek xam ne lii purement politique la. Hmm. su boobaa du la ko àttal dama naan la dossier bi maîtriser ma parce que man defuma politique xaw ko ne bu dossier wu dëgg ñëw loo indi te ma xool ko mu rax politique. dama koy classé sans suite risque bi nag lenn la mooy boo ko classé sans suite. Hmm. ñu def la ni ñu def Ousmane Diagne. mooy mën nañ laa toxalee ca place booba yóbbu la feneen yokkute yi ngay am ci sa liggéey. Hmm. dañ koy wàññi dootoo amati yokkute ci sa liggéey. dootuñ la ay avantages dootoo ko am daal dootoo amati avantage. ah gisoo téliko ni ñu ko def. waaw waaw waaw kilifa la ci affaire yi mais gis nga fañ ko sànni ma nga Tambacounda non seulement mais avancement am yëpp dañ ko arrêté en plus boole ko benn journaliste di ko traîner loo justice muy dem ak ñëw uh-huh. ah yooyu yëpp euh, ci jéem laa wane ne boo teguwul ci raay bi daal bi ñu bëgg ñun uh-huh. nii lañ lay def kon coppite gi am ci magistrature bi daal yow dalul sa xel non dalul xel loolu moom wax dëgg yàlla wala fu moo naan euh, tombe moo waral ay gaaf mais fii ñu ko defee ak nii ñu ko defee uh-huh. ak euh, troisième mandat bi ñuy laam-laamee naan dina am ak du am hmm. yooyu yëpp boo seetee laxas nañ ko ba mu leer ne lii bu ñëwoon day jàlle ni lettre ci poste est que ñi lettre ci post loolu nag su ëllëgee hmm. danger bu mu jur ci réew mi magistrat yi na xam ne ñoom la hmm. danger bu mu leen jural seen bàmmeel buñ ko jooy kenn ñoom la te wallahi dana fa jur danger Mhm. mais ñun moom li ñuy def nekkul justice. d' accord waaw nekkul kon daal président bi li magistrat bi jàng. Mhm. warul nangu ab président bu koy manipuler. te day dem bàyyi ko fi def naa ñoom. président Macky Sall day dem bàyyi leen fi. wallaahi day dem kii ñëw day ñëw fekkaat leen fi. wallaahi. surtout koo xam ne yaa ngi laam-laamee ne benn ata ko dese. dëgg bu mu tax nga yàq sa àllaaxira waxuma sax sa ah, àddina. mais gars yi neen pare guñ de. ah mais. gars yi neen pare guñ de xam nga troisième mandat moom. Hmm? ku ko jëlit du neex. Hmm? ku ci toog du neex doo toogaay du neex. waaw non président Macky Sall nga même bu forcé woon ba toog troisième mandat. Hmm. yàlla seede ne ne. du neex. waaw dëgg la. mënul neex gouverner gouverner bu neex. du lew du dagan. moo tax du neex man maa la ko wax. même bu toogoon bii nii rek bii nii bi mu toog deux mille dix neuf deux mille vingt quatre boo ko laajoon danaan la neexul. parce amul jotu sax liggéey liggéey li mu bëgg. mi ngi ci ay coow rek. rawatina bu nekkee troisième mandat ana coow la. d' coow lu dul jeex.